moo tax fi Abdou Khadir daana digal ñu jàng waxaan xaqan bi su jot wax nañu sax ñi miin ñi ko miinoon ku xëy si daana wax mbaa nga sëriñ Touba mas naa woo sëriñ Modou Mouhamadou Moustapha ak sëriñ Fallou ñoom ñett ku ñu jamante bayit kii jàng benn bayit kii jàng benn kii jàng benn ñu def ko ba xasida gi jeex sëñ Fallou nee nañ daana wax ne sëñ mas maa jox xasida wakaana xaqan ne ma dénk naa la nga di ko jàng nee na sëñ Fallou nee na moom ak magam ju baax ji sëñ mun Moustapha bayit wii ab xaa salaamil karimi samedi xale na bii wasit Muhammadi te sëñ bi reprise ko xale na bii wasit Muhammadi ab xaa salaamil karimi samedi nee wah, wax na sëñ Tuubaa wax nañ ci loo xam ne duñ ko wax kenn dañ ci sant suñu borom rek sëñ bi ko koor wala yor yor sëñ bi daana ko jàngal am na benn borom xam-xam boo xam ne am murteenee la nee na saa yoo bëggee gis sëñ Tuubaa xasida wakaane xaqan lay jàng 1993 sëñ Saali woo na Ndoka di gënal Ndoka boo gisee ku bokk daari loka laaj ko loolu ginnaaw go sëñ bi waat leen digal leen ñu di ko jàng ñaanal ci seen bopp ñaanal ko ci moom sëñ Saaliw ñaanal ci réew mi wax na ne xasida gi lu waaye bëgg mën na la ko xëccal lu waaye ragal mën na la ko jañal daal di ne ko jàng suba ak ngoon te sëñ Saaliw ñu soo ko toog xalifa ñël beneen xalifaam la digaloon ñu jàng waxtaane xaqan da ko mën ko euh, bind moomu sëñ Amsatu mu sëñ Suhaybu yàlla na fa yàgg ci euh, moo ko bindal loolu yëpp nag mi ngi jaaroon ci loxoy sëriñ Abdoulaye Jaxate mi doon jàngale alxuraan ci daari sëñ Suhaybu kon loolu yëpp day wane am solo gi xasida gi am solo xasida gi fu ñu koy jàngee xéwal daf fay am ak jàmm xasida gi koy jàng suba ngoon doo ñàkk dépense lii moom mu jarab am na daayira bu jógoon Italie siyaare sëñ Saaliw wax ko seeni xat-xat ci réew ma nañu leen di sonalee ci kayit ak ramaas sëriñ bi digga leen sunu delloo ñu jàpp bis dajaloo jàng wakkaa naa xam bañ ko defee yàlla wuñul leen am na daayira wala mbooloo moo xam ne Amérique lañ jóge woon ñëw ci sëñ bi xamal ko ne ko jàngal jàng nañ wakkaa naa xam million sëñ bi keroog daa bëgg ñoom jox leen kafe jox leen suukar ne leen àdduna bi yëpp xaj na ci ci lu wér nag li may bëgg a wax ne ci lu wér ci l'an 2000 Serigne Saliou jàngaloon na wakkaana xaqan am mbooloo fukki junni yoon ak ñaar douze mille wakkaana xaqan koy jàng aajam dana faju ci àddina ak alaxira waaye xool li sëñ bi wax yaa man jaxala haadihi al huruf ridaaka bu ridaa rasulika alayhi salaatu wasalaam yow yàlla yaa def xaref yii xaref wakkaana xaqan arab bu ci ne di sa ngërëm di ngërëmal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lu ko gën a rëy waaye fu raxta jamihil muminina wal muminat araf bu ci ne ya ko def muy mbektem kep ku gëm yàlla ku gor ak ku jigéen wa kana haqqan sirub kun da caa nekk yaquudu li kun fayakun haji minka bila haqqi bilaa ta haji tahaaji kun minka wa kana haqqan motax mune barak li yaram fi khurufi wa khayriha wujut bil mahruf barkel nga yow barkel nga yow sun borom sama araf yi ak lul yi asaluhu nak kawnatihi l xasida xaariqatan li hadatin mufida man señtu Tuubaa ñaan khasida gi di ko xott xarbax waaye xasida mu fi la xasida gu am njëriñ sëñ bi melal xasida gi ne xasida gu nangu la xalal li te jaa bi ahtil kalaam salli wa sallim wal tataqabal sal kalaam sal kalaam gi mooy xasida ak wakaana xaqan gi kon wakaana xaqan mi ngi noonu nee na mun na ala xaarisil uruf bi maa yafuqu danna min mahruf na nga xéewale kii jàng araf yi lu kawe njortam ci ay teraanga ak ay njekk waaye li naasi min xuruf xadaj ribaa loolu nag sëñ Tuubaa boo xam la ci ñaan way arab yii na ko saxaral ak sonoo yaaman kafaahu daal ko doon wax nañ ne képp ku ci am aajo di ko jàng ngir bëgg mu fajo bu ak ci mun na ala xayri seen xuruf ñaan fa loo fa mu fajo foofu nag danaa ci wax dañuy faral wax ne kuy jàng xasida bul fas sëñ bi ñaan na lépp wér na waaye sëñ bi moo fan yu ma siixta hinda xiraati xasida min xasaayid yi tajjud incha allah fasal yéenal saa yooy jàng sama xasida yi yéenal lu la soob da ko am incha allah kon nag bu ñu bëggee dàq fas gi day mel ne dañuy wuuteeg texte texte boo xam ne Sëñ Tuubaa ko bind te man li ma gëm mooy texte ab texte moo ko mën a toxal waaye wax mënu ko toxal te fan yi maa siita xinda xiraati xasida min xasaayid tajjud incha allah loolu Sëñ Tuubaa ko wax kon mm, li wax ca waxaane xaqan daal ñi ko xam xam nañ ko euh, ñi ko réere réer nañ dégg naa ci sëriñ Aliou Diop xidma mu ngi dund mi ngi nekk Dakar moo jiite daayira mu xaddamatul xidma mu ne dégg na ci sëriñ sony bu sëriñ sony bu ne sëñ Tuubaa nee na mbooleem xéwal yi ma am fii ci àddina ngeen di ko gis maa ngi ko amee ci wakkaane xaqam alaxira gi ñu jëmit mbooleem xéwal yi ñu fay séntu maa ngi ko amee wakkaane xaqam di sëñ Aliou Diop boobu ko ne ngi dund ñi ko xam bari kon nag xasida gi ku ko jàng bam saf ci yow nga jikko woo xasida yi am bànneex boo xam ne nii يورك مخي هم يبانيخ بسنج تباري تدو حنين تفات مدري والبلوا بفات لي مخنين لي خادم خلوا واحد عم انفعال الإجابة تبارك أجبتني جواب من تحال هم سنة وخط لي انفعالا انفعال قوه بس في تيولو بقدر ده واي دعوة دعوتي جساء من جل حين مثال لي خادم أخابا مثال بقول جانغ بدفتح لك تمام دعارة وسيمرام تايد طيب نك Thank you. bu defee boo defee taxaluk ci xasida gi da nga mucc ci shirk ak nifaax te it nag suñu borom dañ la jox minax yooyu sëñ Tuubaa di tudd ci biir wala yaqud minaha googu muy wax saaqa makaar yi li man xam naha madrasi wala yaqud minaha ku def taxaluk ci xasida gi faaw loolu dana dugg ci yow. waaw bëggoon naa tuuti rek. ndax xam nga Serigne Touba. biram li tax maanaam képp koo xam ne jàng nga rek Serigne Touba daf lay xaw a jaaxal mooy ni muy bindee. manam matale gi ci walu harout ak bayan mo taxone mo bëgg nga ñëw 3 minutes ak ñetti minutes ci balaaxab xasida gi ci walu balaaxa wa xam nga walu balaaxa bi dafa rafet dafa neex gis nga sëñ bi lu soob malaay xam la ci def wa sëñ bi def na ci jinaas la baat yo xamni dañuy nuro ni leen bindé ci yàq te bëkku ñu li ñuy firi ci maanaa sëñ bi def na ci iqtibas iqtibas bu leer nañ ñi la ci sëñ bi def danaa teewlu bayit bi léegi nga xam ne walan googu suñu borom di wax ci alxuraan wala ni ci xarallaahu lil kaafiriina alal mu'miniina sabila nga xam ne mooy ñi gëm yàlla dëgg-dëgg ñi nga xam ne seen gëm yàlla mat na kéefër yi duñ am yoon ñoom sëñ bi ne wala xutta walan di walan walan googu dafa jàpp wala ni ci xarallaahu lil kaafiriina alal mu'miniina sabila nga xam ne baatu walan gi bokkul ci xasiida gi baatub alxuraan la sëñ bi def ko iqtibaas danaa teewlu baydu yi waaye euh, foofu la mujjee ci walan kon yooyu yëpp xeetu rafet rafet la ci wàllu balaaxa ci wàllu maxnaa ci wàllu badi euh, ba tey ci wàllu numérologie sëñ bi da ci def lu yéeme yéeme ci euh, xasida gi xoolal bay yi moo tax fi Abdu Xaadir daana digal ñu jàng xaqan bi su jot wax nañu sax ñi miin ñi ko miinoon ku xëy si daan wax mbaa wakkaana nga sëriñ Touba mas naa woo sëriñ Modou Mouhamadou Moustapha ak sëriñ Fallou ñoom ñett ku ne ñu jamante bayit kii jàng benn bayit kii jàng benn kii jàng benn ñu def ko ba xasida ga jeex sëriñ Fallou nee nañ daana